ñaaka leen nu rëy ñaaka nañ ku am solo ñaaka nañ e patriotique ku bugg a Gambia ñii li waa ji wax ñu ne ku am juróom fukki at xam nga lan kan mooy biiri biiri ñun luñ koo tegal rek dañ koo ñaanal yal na ko suuf si seeda lim ñu bégal yal na ko yàlla bégal lu ëpparu lu noonu man dama bàyyi suma liggéey pour ñoo sargal suma koto bi suma onkul dama daan toog box ba di ko jis ndamoo ko Diko yuhu, yuuxu di ma beglo ak suma musna anda suma papa Muhi hol biiri njay be joy ndek football bi ñoo football bi ñoo gambia waye gambia ni ñëwuñ de holal ma askan bi ni li ndax li war mo wara am waruta am nañ ekati sun profession si na lañ ekati ci kaw koto bi ma togal ni plena biri ci si fil ki moy bil bil omar keta mota munta mun mu bàyyi suñu suñu office ñoo pour sargal suñ koto bi ñu ko ñaanal yalla suuf ci lim liggéeyal Gambia yal nako yalla fey yal nako malaika yu ba teeru duga arjanal Firdausu, waye billahi gor gi dina dem fofu parce que dama ko xam I know him he is good well man ma ngi tudd Omar keta waaw waye ñu gën ma xamé ci Bill you know mom la ma ñep xamé be ma play football am ma ngi play Port Authority you know Mass ak ci gay mi doon wax jóge ci podium bi moy won suma coach by den am alaji Mamadou Biri Ndiaye nag moom moo ñu féete man bema ko sétane you know danaka ma ngi won ay 16 or 15 years box ba stadium ba dan jogé civil di ñew di player si Gambia waye ba mo hal carrière nak yalla defna ma ngi nek waye play na mom for two seasons bokuñ won team nak, waye am man ma ngi won port mom mu ngi won walidan waye ku bax la am comme ni ko fi gay yi rek waxam mun nga ko wax fii bi ëllëg xëjut si géej di ñaan rek yam yàlla na ko yàlla may ajana firdaws am di masawu amin am seen am mbookaam yi you know di ñaan yàlla na saraxam yaaga seen loxo fu moo dem yàlla na ko gënal fu mu jógee yàlla na suuf sedda si kawam si barke salaatul fatiha waaw comme niñ ko waxee rek you know lii rek lañ am pour waa waxam daal xëjut si géej bu niñ ko wax fii xanaa ñu amal ko spécial programme understand nga ma you know over the TV you know nit yi mun toog you know di contribute and wax ba pare di gën a gaaral di gën a digëral lu fi kii wax Panderi moo ko njëkk a wax barkaati dimba am kii ñëw tamit digëral ko waat xaritam bi you know ne dañ ko war a dañ war a rename you know friendship hostel to Alhaji you know amin mean stadium ba di dax ci dolli saa in front of the am stadium war nañ faa def statue bu mag you know pour di ko fàttaliku at all time yes lii laa amoon pour contribute daal si tiis bi maa ngi naa gërëm dina sant